lii bànneexu ñëw bi nag mooy dañ fay fekk koo xam ne moom day ñun dañuy moom muy mu muy ñun ñun ñeent ñi ànd ñëpp ñun ñoom kenn ku ci ne mënoon naa représenter moroomam fii ñu toog muy Mouhamed Cissé mi ni ma koy faral di waxee mooy président Macky Sall tabbu ko parce que Mouhamed Cissé la tabbu waaye ñun ñëpp dañoo amee responsabilité wu relever relais défi bi nga xam ne moom la ñu président tegal suñu kanam parce que boo nekkee ndaw yàgg wax ne mag ñi mënuñoo wàcc ci terrain bi président jël ndaw lu toll ne yow ay la yéwén fu ñu ko tuddee képp ku dëkk ci dëkk bi nga nangu ko ak nga bañ ko xam nga njàmbaaram xam nga bëgg lu baaxam xam nga def lu baaxam ci dëkk bi te bu ñuy tànn nit critères yooyu lañu ñu war a njëkk a tànn ci moom kon moo frère gàcce ngalaama tànn bi ñu la tànn jàppal ne uute uutale ko ak ñu tànn suñu jëmm yi ñu tànnoon ma ko man wala ñu tànnoon ko minikaar wala ñu tànnoon ko Serigne Saliou jaxate wala ñu tànnoon ko sëñ Xaasim Mbàkke wala ñu tànnoon ko sax Moustapha Moussere wala Manel Fall loolu benn jéego la boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a jàll ginnaaw bu ñu ko jàllee ba pare dana dana ñu may ñun jeunesse bi ñu am légitimité wu di wax ci sunu biir. parce que itam nag benn jéego la boo xam ne président tàllal nañu loxo mu ngi mel ne rek ku nekkoon ci géej di bu buñ la tàllalee loxo dangay def ay effort ndax nga jug loolu moo war a tax ñun ñu def ay effort pour list bi jàll ci jàmm 31 juillet incha allah en tout cas li may ñaax sama mbokk waa di ko ñaax jigéen ñi di ko ñaax mag ñi di ko ñaax ndaw ñi mooy ñu xam ne président Macky Sall li mu fi def doy na ab lim man aajawul sax di tudd lu boni keneen parce que koo xam ne lépp boo doon jógee fii di dem Dakar léegi mën ngaa reeree ji dakaar loolu doy na ab liggéey soo ñëwee ci dëkk bi lépp luy ji aajowoo lëkk dëkk bi aajowoo ko président Macky def na ci ba def ci lu kawe jortam kon ñun même burul ay président Macky Sall sax ñun ñi nga xam ne takku nañ nekk doomi dëkk bi te kat juddoo fu baax yaroo fu baax màggee fu baax ba pare di jéem a màgg it di jéem a xeeñtu lu baax mooy ci loolu moo tax Mouhamed ci loolu la ko président fekk. ci loolu la ko président idris sekk mi ànd ak président fekk ba tax lii mën a am man day gàcce ngalaama parce que li tax mooy bokk nga ci rare personnes yi nga xam ne tànn nañ leen ci dëkk te koo ci waxal ci téléphone mu ne la diw kooku ku baax la loolu nag très sincèrement jëf la joo xam ne nit ki nelawul pour am ko. loo yàgg jëf la loo yàgg di xeeñtu la ñun ñi la yàgg xam xam nañ suñu diggante ak moom. kon daal Mouhamed ñu ngi lay xamal ne ñun délégation bi ànd Serigne Xaasim Mbacke Serigne Minicar sa frère sa mbokkum taalibe ak man mii nga xam ne sa rakk laa sa xarit laa euh, ak Serigne Saliou jaxate mii xamal ne foo nekk ci senegal bu la neexee nga dem wéer say tànk lépp loo war a dox dinañ la ko doxal laaju ñu la benn dërëm laaju ñu la gunge tàgguwuñu la. fépp foo xam ne war nga faa teew buñ la ko njëkkee yëg ñoo la fay njëkk dem buñ fa waree def dara danañ la ko fa defal xaaruñu la ci dara li tax mooy ñaar moo ko waral bi njëkk mooy ñun amuñu lu dul président Macky Sall te nag am na loo xam ne day bëgg a sori dañ ko war a leeral lii warul jàll te président Macky Sall amu fi ndam lu yaatu parce que itam nag bët bu rusu toj nit su fekkee li ko war lépp def na ko da ngay fexe li mu bëgg mu am ko kon ñun loolu tax na danañ ci xar suñu tànk tubéy danañ génn suñu alal danañ miraasu lépp lu ñu mën jàpp bu ñu ko bégalee nit ñi ñu bég ba tax li ñu bëgg ñu am ko danañ ko def incha allahu taala kon Mouhamed it yow tëddal nelaw na sa xel dal waaye macha allah gis nañ ne ba nga ñibbiseeg léegi ci tukki bi sa taxawaay rafet na fépp fu ñu gontu fépp fu ñu xëy ne bu ñu xëyee dem fa bu ngoonee dégg nañ la fa kon loolu yaa ngi ñuy gën a yombalal ñun sunu mission ñu lay wax ne nekkal ci loolu bul déglu bul geestu bul xuloo bul xeex parce que bu la yàlla tànnee jiital la ci sa moro say sa sa kanami morom da ngay xam ne yàllaa la jiital faw mu gàll ci dara lam cay gàll nag na nekk asaka ji te xam naa ne nag kilo la yar xam nga ko bu baax la mu daan wax mooy Serigne Saliou yàlla yàlla yokk ay leeram du noppi ci nit mukk nit di man ci moom dara kon góorgóorul moo frère yàlla baax na ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla defal la ndam ndam li it yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ndax moom la ñuy xëy di ko wut kon bàcci sog ñu ngi lay seedeel ne daje rek jaroon na ñëw fi waaye incha allahu taala sa jigéen ñii nga xam ne ñoom la ñu seet si tey ñu profité wax ko ci kanamu Mouhamed Cissé ñun dañuy def fu ñu dem dañ leen di laaj lan mooy seen njàmbat li ëpp ci dëkk bi nag ci jigéen ñi mooy ñoom financement la ñu bëgg parce que dañoo bëgg a liggéey te loolu lu dëggu la parce que jigéeni Touba yi ay jàmbaar lañu ñi ngi yaxantu ñi ngi góor góorlu te lépp ngir dimbali seen borom kër yi ci kër yi kon ñun warteef la ci ñun ñu taxawu leen moo tax fépp fu ñu dem danañ xool jàngooro yi bu ñu paree léegi danañ xool lan ngeen bëgg ci ku leen ci jàppale waaye fu ñu demit dañuy bëgg balaa ñuy taataan wax ji ñu fekk fa ay nit yoo xam ne buñ balaa ñuy taataan wax ji ñu defal leen loo xam ne seen xel dina dal ndax ñu mën a xalaat moo tax indaale nañ leen téeméeri junni ngir ngeen def ko seen kees liggéey ci liggéey ci ngir mu amal leen njariñ kon daal ngeen bàyyi xel ne liñ leen di defal lépp ci benn doolee tax ñu man ko muy doole président Macky Sall kon bu heure 31 juillet jotee bu 31 juillet jotee ngeen jël seen carte yi dem woote ji président Macky Sall parce que mooy seen njariñ nit bu la defalee lu la amal njariñ da koy bañ a weccoog ku lay wax dara ay wax mënut a weccoo jëf te président li mat a jëf ci dëkk bi lépp jëf na ko fekk ko Cheikh mun Mountakha teg mu teg fa Cheikh mun Mountakha loolu képp waroon naa doy bilan bu tax mu yi jël seen carte yi jox ko ko kon ñu ngi leen di ñaan. le 31 juillet bu kenn mooy la saw carte président Macky parce que it jëf na ko ci dëkk bi wax na ko ci dëkk bi def na lu tax ñu war ko fay def rawatina nag ndaw yi mu tànn ku leen jël seppi leen teg leen ci kanamu nit ñi danga xam ne kat ñii ñu mat a àndal lañ te Mouhamed Cissé mi bokk ci di suñu frère. kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bàcc itam di la di la di la remercier bu baax waaw di sant itam mbooloo mi nga xam ne ñoom laa àndal ñu bokk liggéey bi yendaluñu fanaaluñu sëñ Xaasim Mbàkke minikaar sëñ Saaliw Jaxate ñu ànd di liggéey liggéey bu mucc ayib xam nañ ne kenn daanu dajul suuf waaye danañ fas yéene fu suñu xel àgg suñu jëf bëgg na fa àgg. suñu tànk yi ñu yi tax ñu egg si fii yàlla xam na ni fii dañoo dañu fee yem mais bàcc xam na ni ci yeneen programme lañ nekkoon mhm. ma dégg fi sama xarit yii. ñii nga xam ni euh, ñun li ñu sëñ Saliou jàngaloon mooy dëgg-dëggi mbokk mooy ñii ñu bokkal sëñ Saliou yéen jigéen ñi nag dafa am benn message bu nga xamante ni euh, dañu bëgg ngeen déglu ko ci fu ngeen jëm ngeen yóbbaale ko maanaam mu bañ a yem rek ci seen biir képp kuy seenu xarit wala muy seen mbokk ngeen waxtaan ceeg moom. Euh, ngeen xam ni président Macky Sall jàmbaar la ndax Mohamed Sylla lii mu mën a def fii su ko mënee def. président Macky Sall moo tax bu leen déglu ñi nga xam ne dañuy toog ci rajo yeeg télé di wax rek ndax wax moom sottalul dara ju àndut ak jëf ca ki ñëw xamoo ko mu ñëw seet si la ndax benn jëmm bu ñuy wax bàcc soog mu ñëw jël responsabilité am lu mu yëkkati man koo teg ci seen loxo ca dara xewagul defalagoo leen ko dara kooku boo leen ko defalee di ngeen xam ni gënu leen koo gore ca président Macky Sall dañ ko ameel bor buñ ko war a fay ndax sëñ Abdoulaye Mbacke mu baax ma moo ne woon euh, murid sëriñ Touba ku mu ameel bor murid yi ñoo la war a fay du sama wax waxi sëñ Abdoulaye la sëñ Mountakha wax ñu ñëpp di ko dégg ñëpp di ko gis mu ni président Macky Sall mii de dama koo ameel bor boobu nag moom lottu na ci fay ko waaye day dem ñaan ko ci Serigne Touba. loolu nag bépp taalibe wala ngay murit bu ko dégg boo amoon beneen bët président Macky Sall war ngaa changé sab gisin ndaxte ku amul lu dul lenn da koy da koy fonk yow mal xeyaam gën jëm ay caaxaan amu fa ci sëñ Touba dong lañ fa yaakaar yaakaaruñ fa keneen ci sëñ Mountakha moo fi sëñ Touba ci lii bëgg-bëggam la sëñ Abdoulaye toogoon na fii ni na ñëpp woteel Abdou Diouf ndax li ma bëgg ci dëkk bi mi ngi ma koy defal ci xob yi ñu yor dong la soxla dañ ko ko jox. kon nag kart yi nañ ko jox président Macky Sall man lii du dama koy wax ndax damaa nekk ci ab liste. ñi ma xam xam nañ dëgg goo xam ne ci man lu ma gëmul duma ko wax kenn kenn mënu maa tax a wax loolu ma gëmul fa may dem tamit bu yàlla dogalee ñu egg fa demaluma fa président Macky Sall demalu ma fa président Idrissa Seck demalu ma fa kenn waa Touba laa fay taxawal te kenn du ma dégg ci ak ñàkk fayda kenn du ma gis ci ak ñàkk fayda lépp lu nga xamante ni lislaam nanguwu ko nit mënuma cee dugal lépp lu nga xam ne nag dëgg la moom ñu war cee jàppale président Macky Sall dinañ ko défendre dinañ ci taxaw bu waree wax dinañ ci wax lépp lum mu laaj dinañ ko def ñun foofu lañu nekk di leen wax ne daal yéen jigéen ñi gën leen a góorgóorlu ci xam ni ñun seen frère lañ Mouhamed Cissé bu ngeen ko jàppalee Mouhamed Sylla bu ngeen ko jàppalee muy ñun ñi fi toog ñëpp ñun seeni frère lañ bokku ñoo ñi nga xam ni dëkk ñu ci dëkk bi bu ñu ñëwee wax leen ba ngeen voté leen bis boobu ngeen leen di noppee gis bàcci soog mii këram a ngi nii mun leen a réer fu ngeen ko bëggee gis gis ko ca ñun nag moom chaque jour ñooy nekk kon ñun ak yéen benn lañu lii ñu jublu dañ ci bu ñu président Macky Sall yaakaaree ba dugal ñu ci ñun yéen lañ ci yaakaar. Mohamed dee na dina leen jox. cinq cent mille ñun dinañ leen ci dooleel cent mille francs commencé ko ca danañ fi ñëwaat waaw dëgg yàlla fii tax woon tax ñu woon a jóg dañ fay jaar rek waaye bu soobee suñ borom dinañ fi ñëwaat dinañ leen jàppale ba ngeen xam ne jàppale nañ leen. sant bi nag ñu ci jiital bàcc mi ndax bu liy xewee tey yàllaa jëmi bàcc moo ko waral ndax yàggagu fi nag waaye war nañ jikko ju baax war namit ak baax gu ma gu ma sëkk. wan nañu luñ mën a àndeek moom wan nañu tamit luñ ko mën a fonke ndax ku la may dërëm tey bu subaa bu amee junni dina la ko may te bàcc di may nañu lu bari ndax auditeurs bi mu ñu defal ko si néew ñu di ci liggéey ba ñu dalee ñëw ba tey ba ñu gis ku fi ñëw ba léegi gisaguñ ku ñu may sax junni ba di ñu defal ordre kon bu ñu defalee ordre ñu di ci am luñ ci am ak ku si néew sant ko la ñuy def kon nag nañ fas yéene ñun ñëpp ñi fi di jigéen ku ci amul carte d'identité na ko wuti ku ko am tamit na nga fas yéene bu bis ba ñëwee nanga nga mobilisé wu ñun ñëpp jël oto yi dem voté bu kenn aw fen nag fu fa leen bàcc awloo rek na ngeen faaxu wote président Macky saal ndax bu bàcc amee dinañ am. di financé fas yéene liggéey ndax ñun ay jàmbaar lañ dañuy liggéey sax ba ñu kenn financé kon bu ñu gisee ku ñu jàppale ñun dañuy dem ndax fi mu ñu toll temb ñun ay jigéen lañ waaye jigéen ñu ñëwul génn góor lañ xanaa di ko sant nag te ñaan yàlla mu yàgg ànd ak ñun te bu àndee jàpp ci ñun ñu jàpp ci moom. dina xam ne ñun jàpp julut bàyyi lañ waaye moom it jàpp julut bàyyi la waaye ñun jàpp julut bàyyi lañ te bu soobee Serigne Touba duñ ko war ci benn yoon ndax ñun ko bëgg Serigne Touba rek ñu bëgg la te suñ saali moom ñu tudda rek daa fees dellu suñu xol tey gëm naa ni li président Macky Sall bëggoon tey Mouhamed tey def ngeen ko mooy dem ci quartier yi gën a sori muy saam tey mu nawir sudur bii ngeen ñëw xam ngeen ni jigéen ñi fi nekk jigéen la yoo xam ni seeni i condition dafa jafe ci wàllu liggéey ci wàllu koom tey boo leen yëkkatee teraanga ju rëy muy 500000 jàppale leen ko ñu dugal ci seen kees ba pare wax leen ni leen wax leen ñu lan ngeen bëgg ñu jàppale leen ko ci ay groupement ci ay financement ci ay formation kon président Macky Sall la mu waxoon tey le cinq ca pale de la république Mohamed yow yaa ngi ci ak ñi nga àndal. ñu ngi lay sant parce que président Macky Sall bu ñu amoon tey fukk yu mel ni yow defe naa ni dëkk bi dina ci am ndam parce que teraanga ji mu daan def dafa am fu mu daan yem. yow nag bi ngeen ñëwee gis nañ yéen a ngi dugg fi gën a sori parce que mun naa wér sudur guléet ñu mayee fi teraanga ji toll nii ñoom jigéen ñi ñoo ko waxal seen bopp kon tey boo fi ñëwee indi fi teraanga ji dañ lay sant bu baax ci turu président Macky Sall ngay def lu rafet nag sa xarit bii nga xam ni yéen a bokk sëñ Saliou ngeen daje fi muy coïncidence nga wax ko sànq ni kat daje bi ngeen fi daje rek jaroon na jotaay bi kon Mouhamed yow ñu ngi lay encouragé di la gën a ñaax di la wax ni la lii bu dakkul bu soobee yàlla au soir du 31 juillet yàlla dinañu may ndam kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm wasalaam.